dal leen ak jàmm mbokk internet yi xibaar bu bees am na ci dossier bi leen Tactic bi doon toppal jëm ci li xew ci diggante Mamadou Diop ISEG ak Dieynaba ba waa kër Dieynaba Baldé dellu ginnaaw ca la ñu doon toppee Diop ISEG jamono ji waa kër Dieynaba Baldé seen kuddu jàmm la ràcc dellu nañu ginnaaw ci constitué bu ñu waroon a constitué wu partie civile bu ñu sukkandikoo ci waa Soleil seen avocat bi la di maître Ciré Clédor Ly moo déposé ab kayitu bataaxal buy wane ne dellu nañu ginnaaw ci boobu le mbir lu mënti xew dinañ ci am lu ñu leer bés nga xamante ni ca la yoon di déglu partie civile Mamadou Diop ISEG ñu gën koo xam ci Diop ISEG bi ko yoon tegee loxo ba fi mu toll nii ay waxtaan dajee diisoo ki nëpp nëppal mi ngi am ngir rek ñu mën a fexe génnee ko fa mu ne ca njëlbeen ba ko yoonul tàmbalee joxoñ baaraama ak coow li tàmbale woon am ci mbir mi ay gisee ki waxtaan ci lu ñuy woowee médiation pénale amoon na ngir di ko moytu lu mu dugg prison maître Ciré Clédor Ly mi nga xamante moom mooy avocat xale bu jigéen bii di Dieynaba ne moom déposé woon contre Diop Iseg waaye ci kaw rek ki lay di Diop Iseg nangu ne moom mooy bàyyi doomub Dieynaba Balde ji ànd ak loolu mu fas ko yéene takk soxna waaye mel na ni jamono joojo ki lay di Diop Iseg jaaree ko ci ay avocat dafa bañoon ba tëdd ca naaj ba la ca topp ak la mu jur ñëpp xam nañ ko ba fi mu toll nii Diop Iseg ma nga ca biir prison ba te lu set wecc moo ko fay génnee waaw génnam du yomb ndax kat nag waaj ji pax ma mu dugg moo xóot fi mu ne mbir mi daa weesu loxo ndax la ko yoon di toppee weesu na sax plainte ba nga xamante ne moom la avocat bi Dieynaba Balde bi huitième cabinet toppee di pédophilie saay-saayee xale bu ndaw détournement de mineur nax ak yàq xelu xale bu ndaw ak corruption de mineur maanaam di ger xale ngir yóbbu ko fu warul ñetti bant yu dëgër yi moom la yoon samp tàcc kili di Diop ISEG looloo waral ba fi mu toll nii ma nga biir nugusin ndax dana fa génnam déet ak su naree am kañ lay doon moom mooy li ñëpp umpale fi mu toll nii na am sax ay avocat am maître Alassane Cissé Seyba Danfaka ak Emmanuel Padanu jotoon nañu jébbal yoon ab kayitu bataaxal sukkandiku waaye magistrat ba daf ko rejeté maanaam dafa bañ saisir nañu chambre d'accusation bu cour d'appel bu Dakar jébbal ko ab kayitu bataaxal ngir annulation de procédure waaye ba fi mu toll nii moom cour d'appel boobule yëyul yàbbi ca mbir ma waxul lu ca jëm ñuy xaarandi ba xam fan la wànnante di mujjee ki gëtëm Tactic TV dina leen ko toppal ngir indi leen ci ay xibaar jërë ngeen jëf